tey dañu ñëwoon daje fii ci CDD bi nga xam ne monsieur le préfet moo convoqué nga xam ni dafay bëgg a nekk ci ouverture bi maanaam préparer ouverture de classes nga xam ne li ci des bareetul te loolu day am solo ngir ñu mën a waxtaanee lépp li nga xam ne jafe-jafe la mën ko saafara balaa loolu donc loolu moo tax dañ dajale dem ñi nga xam ne mooy directeur d'école yi principaux yi proviseurs ñëpp war woon nañ ci réunion bi ak les maires ak autorités administratives comme ça ñu xool yan jafe-jafe la mais balaa ñu dugg jafe-jafe ñu def bilan année bii mu passé moom la ñu def xool année bi lan lañ ci def ak yan moo doon jafe-jafe yi surtout jafe-jafe ñu xool yan moo ci gën a taxawaat ñu xool ñu koy saafara bu ko defee aussi ñu wax ni année bii nan lañ koy nar a aborder ak fan la ñu war a jëm donc tey waxtaan bi yëpp loolu la bu dee ci wàllu bilan gis nañu ni am nay jéegu jéegu yu ñu def yu am solo. su dee ci wàllu tabax yi su dee ci wàllu table banc yooyu am na ay jéego yu ci def moo tax ñu félicité quand même état bi ci taxawaay boobu bay xool tey Mbàkke dafa bëri ay abri provisoire mais teewul état bi mu ngi ciy taxaw ci cadre projet projet programme ba ñuy wax projet PRORAP programme de résolution des abris provisoires donc Mbàkke am na ci 37 yoo xam ni waroon nañ ko tabax su nekk 30 yi pare na 7 yi moom lañuy ñu war a continuer bu mu pare donc loolu su duggee ci kii baax jox nañ ñu vingt classes yu ñu tabax ba pare ci cadre PACASEN bi loolu aussi am na solo donc lancé appel na yeneen maires yi ñoom ñu nekk ci dynamique boobu pour que loolu ñu mën ko régler ba nga xam ni abri provisoire ci jeexul it ko wàññi bu baax a baax bu dee wàllu table banc yi même chose table banc yi lu ñu manqué dañu xaw a bare daanaka ñett junni mais booy xool ren yónnee nañu presque juróom-ñetti téeméer lu wees tuuti juróom-ñetti téeméer loo xam ne dugal nañ ko ci donc dana xaw a wàññi tuuti. mais parallèlement aussi ministère de l'éducation engagé wu na pour replacer pour réparer ñaari junni ak juróomi téeméer table donc loolu boo ko ci dugalee day mën a mën a tane mais du tee nag yeneen bon volonté yi ak collectivités yi ñooy war ci seen loxo parce que loolu dafa solo fii da xam ne par ñeent la ñuy toog que day am te loolu déjà day joué ci seen rendement scolaire moo tax ma pour ñu ci mën a jàpp ñu pour que loolu ko donc euh, yooyu waxtaane nañ ko maintenant par rapport ak rentrée bi nag comme ni ñu ko waxee nga xam dañoo war a bay école yi war a def lépp li nga xam ne mooy tax xale yi war a mën a ñëw bu dañuy war a pomper ñu am na ay maires yoo xam jël nañ engagement maire yi bi moom dèjà nee na dana defar école yi pomper ko directeur yi aussi nee na ñoom école yi bay nañ koo pare donc li ci def nag mooy fourniture yi pour ñu mën a def ubbi tey jàng tey foofu nag laa am tuuti njàqare ba ma déggee maire yi ñu wax ni am na blocage bu ñu am pour mën a am maintenant seen fond pour mën a jël en charge question boobu donc loolu day nekk gàllankoor boo xam ne boo defoon daan dina ñu tey jàng tey parce que tey mën nañ ko wax mais tamit war am foofu lañu am jafe-jafe tuuti mais du tee daañu seet suñuy pexe bopp lan lañ ci mën pour que au loolu ñu mën ko jëmmal ah, pour pièce d'état civil yi dafa nekk jafe-jafe boo xam ne am na mais man dama naan fii ci Mbacke ñun dañuy féliciter bu baax président tribunal départemental parce que mu ñuy jàppale bu baax a baax di organiser audience foraine pour que xale yi mën a am ay pièces d'état mais comme ni ma ko waxee loolu xëy na dafa nekk loo xam ne dañuy jooyante ci yoon wi maanaam day nekk benn kii boo xam ne c'est mais domaine dafa nekk loo xam ne dañ ci war a taxaw ci njëlbeen ga pour que audience citoyenne sax wax nañ ko directeurs yi pour ñu insister pour mën a régler problème état civil bi xale bi duggee rek nañ ci taxaw ak bi jéem ko régler au bout de six ans balaa mu ñëw sixième année mais loolu mën na régler leneen li mooy surtout surtout nag ñu mën a sensibiliser population yi xale ñu mën leen déclarer loolu mooy le grand objectif bu ñu war a la grande bataille mooy loolu daf mu nekk même am na benn boo xam loolu moo ko tax a jóg te ñoom ñoo ngi def bu am solo donc loolu dañ leen war a gën a dooleel jàngat ko seen loxo bu ko defee déclaration à la a def bu ko defee jafe-jafe ay audience foraine yooyu yëpp a teg donc loolu dafa nekk objectif bu am solo fii surtout ci Touba xam ne laaj na quand même sensibilisation bu am solo pour que école privée comme ni ñu waxee xam nga ñun bu ñuy gérer dañu dénk lépp dañuy si dénk public mais dénk ñu privé fekk lépp lu ñuy defal public bi dañ koy defal privé bi ci kii loo xam daal suñu kii may nañu ko maanaam loi yi texte yi may nañu ko dee ci wàllu formation bu dee ci wàllu partage d'information yooyu yëpp dinañ koy defal ba ñoom wutal nañ la ay site comme ko wutalee école privée na nga xam ne xëy na mënuñ ci yegg mooy bëgg leen jox ay fourniture xam nga yooyu nag moom dafa nekk loo xam ne xëy na état c'est-à-dire suñu kii may ñu ko moom suñu compétence may ñu mën a joxe suñu tur boo xam ne public bi lañ jox ko privé donc yooyu aussi foog ba mu leer ñu bañ a am ay confusion ci loolu donc yooyu lan la ñuy wax mooy privé su demee ba màgg war na mën a demander su amee autorisation mu demander reconnaissance bu amee reconnaissance nag mu am subvention donc état foofu la ko mën a jàppale subvention yi nag mu nekk loo xam dañ ci mën a jënd table def ci yu mu bëgg yëpp daal donc état foofu la ko mën a jàppale mais ñun li ñuy joxe comme engagement public bi moo k moom moo tax doo ko mën a jël aussi su baa day nekk détournement d'objectif donc loolu tamit jar nañu leeral ko mais lépp li nga xam ne nañ pédagogie le accompagnement ñoo ngi ci liggéey ñoom baax a baax am benn jafe-jafe d'ailleurs bi ñu def sax essai départemental boo xam ne IEF moo ko jël en charge entièrement muy tirage bi muy enveloppe bi muy lépp IEF bi moo ko jël en charge privé ak public kenn du def un franc donc bi ñu ko defee deux essais yëpp dañ koy def gratuitement pour les écoles du public ou des écoles du privé donc public bi ak privé ñun ñoom la ñu boole ànd ak ñoom di liggéey ñoom parce que ñoom ñëpp daal ci suñu njaboot lañ ko jafe-jafe ci wàllu transport dafa nekk jafe-jafe bu xaw a jafe bu tar bu tar laay wax sax parce que démographie Touba xam nga su xale yu bëri bëggee bouger bëgg a génn Touba jàngi loolu il faut nga am jafe-jafe na école yoo xam ni am nañu ay solution yoo xam ni solution yi provisoire la boo demee ñoom keere mbay keere ndaw ñoom fexe nañ ba am seen ay oto yu xale yi di ñëw mais conditions yi sax dafa da am mille élèves wala yu mel yu war a dem waaye donc condition du ñuy transporter sax wóorul mu mën a accident mën a indi yeneen beneen bi mooy accident ñoo xam ne dañuy jóge Touba bëgg a ñëw fii Mbacke boo yeewu suba nga dem fii a huit heures moins nga taxaw fii Mbacke Touba condition ñuy traité yi donc loolu dafa nekk un problème crucial boo xam ne ñoo ngi ciy fexe def ay jéego conseil départemental fexe woon na ko def benn réseau de transport mais dafa compliqué parce que ay trois bus la. mais lu mu laaj ci ay carburant ak réparation fay chauffeur yi lu xale yi du fay du ko xaaj ba mat donc day jafe et puis loolu daal maanaam soo koy def daanaka dana régler en partie mais problème bi day desaat lu bare moo dañu ni loolu jar na toogaat xoolaat xoolaat analyser waat mais comme ni ñu ko waxee rek analyse mooy ñu xool yan pexe la ñu war mën a def pour transformer alléger ko mais xool aussi aussi xool suñu offre éducative bi parce que loolu mooy en dernier ko problème bi gën bi am solo xool offre éducative bi au niveau du nan lañ ko mën a améliorer. moo tax ñun léegi suñu objectif surtout mooy aussi en attendant ñu régler le grand problème de l'offre éducative au niveau de Touba nañ xool nag léegi ni ñu décongestionné maanaam ni créer ay CEM ak ay lycée de proximité nga xam ne xale yi ay transport yëpp dina mën a teggee donc ci tànk yooyu lañ nekk moo tax luñ mën nañ ko ci def fu mu nekk ren fexe nañu créer CEM ngasam xam ne dina jël waa kër Daaru Rahman côté boobu yëpp ak waa kër Kab tout envisage nañu aussi ubbi côté école ubbi CM côté Touba Fall côté Tindodi yooyu yëpp aussi dañ koy prévoir ay CM bu dee lycée même chose gis nga fii mu nekk deux lycées moo amoon Mbacke mooy lycée de Mbacke ak lycée Mbacke 2 yooyu c'est des lycées avec effectif yoo xam ne suñu ko waxee sax da ngay jaxal ndax bare moo tax ren ñu ubbi ay classe seconde ci aussi à terme dañ ko bëgg def lycée parce que bu defee seconde première suy dem terminale day nekk lycée schéma dañ ko bëgg continuer ci yeneen zone mën nañ ko xalaat fële à Misira ak keneen ak keneen pour mën a am ay lycée yoo xam tamit dina mën a jël ay sa de sorte que à terme Mbàkke xëy nu mu doon nekk benn zone boo xam ne xale yi dañuy bare trop ba effectif bi compliqué mu seen résultat su boobaa problème bi mën ko régler pour di loolu aussi nañ ci liggéey te am nañu yaakaar incha allah dañ ci am parce que ministère de l'éducation quand même ñu ngi accompagné ci loolu